mbokk yi baaxoo di lu xibaaru bambuk dal leen a jàmm ci seen tënkum xabaaru euh, bés bi. adjoint au maire bu commune bu Fass Cekkende El Hadj Mohamed Gueye moom nag daal dinay tàmbali liggéey bu jëm ci pont bi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene euh, dafa fële ca euh, Dubel loolu nag mi ngi ko amal ni ki altine fukki fan ci weeru avril bi ñu génn pont bi nga xam ne fas yéene na leen dikkee lu toll ci ñaar fukki million di fàttali ne bër ouvrage boobu di pont bi nga xam ne fas yéene nañ ko def foofu ca Diourbel guddaay bi dina toll ci dix mètres de largeur ak dix mètres de longueur ak huit mètres de largeur. li tax nag ñu daal di koy def mooy gis nañ ne bu nawet bi jotee côté boobu dañuy daal di dëkkee si ay jafe-jafe dembeeg dikk bi looloo tax nag ci euh, financement FERA muy fonds entretien euh, routier ñu daal di fas yéene taxawal li nga xam ne. mooy pont boobu ngir gën a yombal askan bi dem dikk bi foofu ci commune bu euh, Fass Cekkeen euh, euh, di fàttali ne pont bi entreprise bu dëkk local moo koy daal di tabax te diire bi nga xam ne fas yéene na ko amal mooy moins de cinq mois. gannaaw loolu ñu àddu ci patriote yu nekk fii ci département bu Koungheul rawatina fii ci commune bi ñoom nag daal dinañ profito ci. Eh, weeru koor bi nga xam ne eh, ci lañ nekk eh, daal di defar ay ndogu daal koy yóbbu fële ca hôpital bu Koungheul loolu nag jeunes yi ñu ngi ko def ngir daal di jàppale dimbale malaat ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi te amuñ lu ñu ndogoo waaye tamit nekk si ay coono loolu na tax na ñu daal di defar ay kin ndog yoo xam ne mburu tàndarma bisaab lépp loo xam ne daal dina tax euh, nit ñi daal di ndogu ndogu bu baax boo xam ne dina leen amal njëriñ daal nañ koy euh, daf ngir euh, jox ko askan wi buñ sukkandikoo nag ci coordinateur jeunes yooyu nga xam ne ñooy jeunesse patriotique yi li tax ñu def lii mooy xam biñ xam ne ñoom dañoo war a dugal seen loxo ci doxalinu gox bi waaye tamit dañoo war a jàppale askan wi nga xam ne rawatina ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw rawatina nag ci jamono ji ñu nekk muy jamonoy weeru koor Eh, gannaaw loolu tamit daal dinañ ci profito ci occasion bi gannaaw ba nga xamee ne élection présidentielle yu 2024 yi ñu ngi ñëw ñu sàkku ci bépp ndaw boo xam ne jamono ji di eh, carte d'identité nga dem déposé ngir mën a inscrire ci fichier électoral yi mën a voté ci élection yi nga xam ne moom lañ daal di eh, dënmal ndaw bii di sénégalais di Mouhamadou Mahi Touré nga xam ne jàngkatu alxuraan la moom nag ci concours bi nga xam ne amoon na niki 9 euh, avril fële ca Tanzanie Dar es Salaam moom nag moo daal di jël deuxième gannaaw ba nga xamee ne topp na ci ginnaaw égyptien bi nga xam ne moo jël premier di Mohamed Omar Mohamed Hussein moom nag Mouhamadou Mahi Touré dëkk fii ci Sénégal moom médaille d'argent bi ci la daal di gagné gannaaw ba mu jëlee ñaareelu place bi. di fàttali ne concours bi bokk na ci compétition yi gën a mag ci wàllum euh, tarib alxuraan ci àdduna bi te day dajale lu toll si ñaar fukki dëkk ak juróom-benn am na ay pays africain waaye am na yeneen pays yoo xam ne lu ci mel Indonésie Pakistan ba ci Arabie euh, Saoudite euh, final bi comme ni mu ko waxee léegi mu ngi amoon ni ki 9 avril fële ca Dar es Salaam ci capitalu Tanzanie te candidat yi li nga xam ne lañ dem sàkku si ñu moom mooy. Euh, ki gën a neex ni ngay eh, jàngee alxuraan ak ki nga xam ne euh, pointuation yi alxuraan bi naka nga koy waxee ba doo ko damm waaye tamit euh, naka ngay def ba sens bi nga xam ne moo nekk ci alxuraan nga daal di koy gën a dëgëral. brigade mobile de douane bu Koungheul ñoom nag daal nañ saisir ay lu toll ci daal nañ saisir. ay kilogramme de chanvre indien mooy dorog lu toll ci quatre-vingt-quinze mu ñu ko xayma ci quatorze millions deux cent mille francs loolu nag ki ñu ko xamal mooy agence de presse sénégalaise marchandise bi nag li njort ne mu ngi jógee fële ca Mali ñu daal di koy dugal ci ab oto boo xam ne dañ ko daal di modifié ñoom nag trafiquants yi def nañ de telle sorte que yamba bi ñu bañ koo gis daal di koy nëbb waaye terewul ñi nga xam ne ñoo nekk douane fii ci Koungheul daal di nañ fexe ba génnee ko daal di jàpp ñoo ñi nga xam ne ñooy trafiquants yi yóbbu leen ci brigade daal di leen yóbbu présenté leen procureur bu Kaolack oto bi nga xam ne tamit moo defoon li nga xam ne mooy chanvre indien bi ñu daal di koy immobiliser. ñu des wàllum tàggat yaram ak quart de finale Ligue des champions ni ki démb nag. ñaari match moo amoon bi ci njëkk namoon ci diggante City ak Bayern gis nañ ne nag Citizen yi daal dinañ génnee jeu bu mag bi ndax démb dañoo daal di dóor Bayern nekk ñett bal ci dara foofu seen stade ñoom muy Etihad Stadium. loolu nag mu ngi am gannaaw bi nga xam ne Rodri daal dinay dugal bii bu njëkk bi ci côté City Zeni gannaaw loolu Bernardo Silva daal di dugal deuxième bi Erling Haaland muy attaquant ki eh, nga xam ne mooy City daal di dugal troisième bii bi. loolu nag liñ ci mën a nemmeeku tamit mooy ci côté Berne Sadio Mané international Sénégal bi ci banc bi la tàmbalee match bi deuxième mi-temps bi la dugg waaye taxul mu daal di décisif bu baax. loolu nag tax na ñu mën a njort rek ne City daal dinay dagg billet ngir demi-finale li nga xam ne mooy Ligue des Champions ndax na dina am jafe-jafe bu baax ngir daal di koy remonter ci ñett bal ci dara yi nga xam ne daal dinañ ko koy dóor. ci beneen match bi nga xam ne amoon na ci diggante Inter ak Benfica Inter moo ko daal di dóor ñaari bal ci dara.